jël mën nañu dem ba à ce que trouver solution par rapport à ces problèmes. on l'espère. Euh, mais il faut surtout qu'on précise que waxuñu dañuy démolir DESCOS yaakaar naa le colonel Sabri Ndiaye l'a rappelé aussi démb waxuñu dañuy démolir dañu ne dañoo arrêté lépp si lu jëm ci travaux yi am ci par exemple ci corniche yi muy est ak mais dañu arrêté tamit lépp lu jëm ci joxe bañ doon joxe ay euh, nga ñëw am. Euh, décision bu wala euh, bu maire bi wala municipalité bi nga dem di soxla euh, bàyyi ñu war la lijjantil pour titre foncier yooyu yëpp dañu arrêté maanaam liggéey bi domaine doon def lu bëri dañu ko ne taxawalal bul joxe terrain bul lijjanti suuf nañu taxawal lépp ba xool lan moo fi xewoon ci lañ suuf suñu joxe ñu ne tey ñi nekk ci biir corniche bi par exemple bu ñu jëlee exemple corniche kese la ñuy xool mooy Euh, Cheikh Abdou Lahad am na suuf fan la ko jëlee nan lañ ko joxe donte am na ay kayit mais am na un expert euh, bu wax ci loolu c'est dans les journaux c'est pas parce que euh, dañu décider ni dañuy arrêter lépp que mënul am conséquence parce que bu dee Birahim Touré dafa am suuf en bonne et due ñu jox ma kayit bu valable ak lépp ba ma jëm jël sama xaalis wala ma dem banque nga leen abal leen ma dama bëgg tabax nga tàmbali tabax mën nañ ma arrêté lu mais mënuñu toj la ma tabax parce que dama am ay ci base bu légal bu wóor bu ma jëlee kayit boobu. moo tax li tax président euh, ci décision bi ñu génnee mu jaarale ko ci ministre des finance mooy dañuy dakkal pour justement ab comité ad bi nga xam ne moom moo nar a taxaw xool saytu ku ci nekk suuf si nga yore ndax yaa ko moom. ndax am nga ci sañ-sañ ak fan nga ko jëlee pour bu fekkee ne dañu war a rectifier ñu rectifier bu fekkee ne mën nañu sax ne la waa yow fii nga am suuf dëgg la yaa ko moom kayit yeeg yëpp baax na peut-être xamoo ne ñala jox kayit bi sax peut-être ñoom ci leneen la ñu nekkoon wala leneen moo nekkoon seen seen bébét mais li ñu bëgg mooy nañu nangu suuf si si yow. ñu jox la feneen beneen suuf soo xamee ni dinañ mën a préserver ñun suñu littoral parce que dafa am lu ñu wooyee domaine public maritime boo xamee ni amuñu sañ-sañu joxe ko nu mu leen neexee mais ñii di wax nii ñëpp ku ci nekk Pierre Goudiaby Atepa am na sax cité Atepa ku ci nekk am nga suuf. xaar ma terminer sur sur ce plan là parce que bëgguma après ñu jëlee ko neneen ku nekk ci ñoom am nga suuf suuf c'est un droit. tout citoyen c'est dans la constitution am nga sañ-sañu am suuf soo dëkk wala foo bay pour dund wala dundal constitution moo may doomu aadama bu nekk bu bu yeewoo Sénégal mën a am sañ-sañu suuf mu mën cee am fu mu mën a dëkk ñi am na ñoo xamee ni lañu am ci ay hectares duñ ko tudd ak anam ya ñu ko amee gis nga xeex bi du question wu arrêter seulement les constructions pour taxawal comité bi pour saytu fan la mbir yi jógee mais 2020 la ñu wax lu tax di ñu jiitu avant 2020 ci jamono yi ñoom Ablaye Wade jamono yi ñaata suuf lañ fi joxe ci mbirum politique aussi jamonoy Macky Sall ñaata suuf lañ fi joxe ci mbirum politique aussi mais ça ne doit pas s'arrêter à 2020 nañu saytu bien avant loolu. parce que y des gens yoo xamee ni ñu nekk ay centaines de centaines d'hectares yoo xamee ni fan nañ ko jëlee mbirum corruption boobu c'est à des niveaux insoupçonnés maa ngi ko fi wax di ko waxaat et des gens euh, tudd nañ ko fi journaux yi di ci bind gis naa tey sax ñuy jéem a weddi yenn yi euh, fu ñu demee ba je le répète jël ay hollandais jox leen bàyyu vingt cinq ans renouvelable ci ci suuf soo xamee ni euh, eaux et forêt moo leen ko jox y'a problème waxuma ku ko moom ak ku ko moomul mais le problème il est là y un problème si on nous dit le prétexte mooy dañuy bay soble y'a problème parce que am na yeneen gox yu ñuy bay soble te joxuñu leen suuf su toll noonu joxuñu leen sax moyens yu toll noonu ñenn ñi xuloo nañ fi ci ay ay nit sax jàpp nañ ci ay nit ay bakken faatu nañu ci mbirum foncier ci Sénégal plusieurs fois mais tout ça pour nga mën ko rek régler il faut li ñu naan bul yam ci surface gratter surface bi non non demal en profondeur bul yam ci 2020 demal avant 2020 bul yam ci arrêté mais demal ba ci ña ñu jox ba pare ba ñu def lu leen neex ci suuf si séddale ko bu jaree jàpp nga jël leen jàpp leen man je pense que rupture bi ñuy wax ça doit être tous les niveaux te bul bañ ko la mere aussi yow président la république bul bañ ko la mere parce que yow lañ fal pour un mandat de cinq ans bul xool ndax kii su ma ko defee diw dina ma mere wala du ma mere mais defal li nga xam ni askan wi ñoom ñoo ko war moom askan wi mën cee gis seen bopp c'est pas parce que y a deux ou trois personnes yu def seen association ne ni non bu ñu tabax fii mais deux ou trois personnes yooyu saytu leen. am na ci kenn wala ñaar ñoo xamee ni lañu am ci terrain feneen euh, kenn xamu ko mais ça c'est des choses yoo xamee ni il faut aussi ñu mën ko ma jàmbal Diagne a sorti un truc ce matin ou hier parle de de ce foncier la ne ni moom ñu ngi koy tuumaal te mais ka koy tuumaal moom na wax fan la jëlee suuf si mu am ca aéroport na wax fu mu jëlee suuf si mu am ca bande filao fee ca géejaay na mu wax nangam ak nangam Euh, xawinte sutura boobu commencé am man président de la république je dis à tout le monde même ki ma jege stop fa ma nekkoon impôt domaine ñooy joxe suuf ci ñenn yi arrêté comme ni mu def ne na ñëpp arrêté nañu xool ndegam am nañu sañ-sañ mais moom bu xoolee moom ci président ci ci euh, déclaration de patrimoine am euh, am fa suuf bu ñu mën a wax de mais am na sañ-sañ am suuf surtout que fa mu nekkoon aussi ba ci Ousmane Sonko premier ministre mais moo jiite woon euh, syndicat wu travailleurs des impôts domaine bi seen xeex lan la woon ñoom mënuñu di nekk chaque jour ñu naan leen joxal diw suuf joxal diw suuf te ñoom seen bopp duñ ci am te ils le droit ñaata coopérative ñoo fi am ci wàllu koy habitat ci Dakar dem di coopérative coopérative magistrat yi cité des magistrats lan la kan moo moom c'est-à-dire que boo waree gis lii ñu wax lii ñuy wax nii. Euh, courage au président de la République ak ñu mu àndal c'est tout sauf évident bu ñu jàppee ni c'est évident d'arrêter rek après non c'est terminé c'est tout sauf évident. est-ce que nguur nguur gi fi jógee également amul lu ñu yokk ci biir li nga xam moom moo xew ni parce que au-delà de décision bi bu ñu fàttee.